Serigne Touba li mu am lépp lépp ci loolu la ko jële guddi gëm mujj fanaan ci Sénégal foofu la jóge néeg ba mu jóge dugg ci loxol tubaab bi wala boog dem ci ànd ak tubaab bi ci ndigalul boromam néeg ba fa la nekk. min daare tuddaa bi bari bi ni xaaliqil bari néeg boo xam ne nag mën nañ leen fii la Serigne Touba fanaan fajar la fi jóge àdduna sépp tubaab yi ñëw. mu ànd ak ñoom dem képp ku di murit te dund sëñ bi mu ñor la jot naa ni bis ba bu waxuma la bis bu amul woon sax war nga ko wax waaye nag ñu sàkk bis boo xam ne dafa soxe ko ci ndigalu Cheikh Mouhamadul Fadil. dafa nekkoon fii fi Touba gii nangami at fekk na booba nekk nekk na fi waaye teewul boobu dafa bëgg a dem rek wéeti bu jaamu boroomam Jolof nag mu dem fa foofii ba kibaari googu yi am na fa yéen weer la fa am kepp na laate digg bi ñu jaxase ko be ñu ngir si ko fa hmm. fekk na moom boobu loolu na siiw dem daal moom boobu moom dana siiw ni dem nga amul benn seen sabab hmm. lu muy wax yi day jaxase kat rek diggante moom tubaab bi ñoo ko jaxase woon ko ne ko hmm. kee doo waaye foofee ci si kaw la si bëgg xeex yow rek moo tax ñi ñi fi ñi ko jëkkoon defoon fekk na moom dem rek la bëgg sama kanam lépp na maa ngi teew. daal moom fu mu sëñ Fallou ay mbiram dafa dafa dafa bàttine lool dafa xóot ba dafa jan daal neexutu xam ndax boo demee ba ca kanam rek la la suñu borom dimbali nga xam ci lu bari waaye bëggut benn benn dara manqué ci bis ba ba tax na mu féetewoo li nga xam mooy fukki fan ak juróom-ñett yi di ko def di ko wootal ko fii ci Touba ci dellu ni ko sëñ bi waxee ñëpp di ko màggal te loolu Serigne Touba moo ko digle woon sëñ Fallou wootewaat ko fii ci Touba. waaye bëggul daray sëriñ bi ñu neenal ko tubaab yi ñoom bis ba nga xam ne ñoom moom lañu jàpp muy seen bis ñoom nga xam ne duñ ñu 18 safar ñoom ñoom 10 la ñuy wax 10 août rek la ñu xam 10 août googee daa warta réer loolu tax sëriñ Fallou delloosi ko dénk ko sëriñ Cheikh Thioro ngir bu di ko màggal mu féetewoo ko loolu nag yaakaar na ab ciir mënu koo gën a rëy ci biir yoonu murit lu toll ni bis bi sëriñ Touba génne Sénégal tubaab yi jël ko di ko yóbbu néeg ba mu fanaanoon ak dëkk ba mu fanaanoon ñu dem bay fàttali ko bis booba loolu ku mu ñorul dara du la mën a ñor